mane ne baa am ngeen jàmm yal na continuer yal na continuer jàmm jooju yal na continuer ah, baa xam ngeen ne réew mi dina changer <laughs> billahi réew mi dina changer réew mi dina tegu si loxo ginnaaw ba yàlla def na tegu na si loxo yu jub réew mi dina soppiku de gis ngeen mbay matériel mbay mi matériel mbay mi mi nga xamante ne jaar na si loxo yi euh, ministre de la euh, ministre de l'agriculture gis ngeen gis ngeen bagages waaw ah, waaye nekkate réew mi yomboon naa liggéey waaye ñen ñen ña ña ñu jiitu woon yéene ñu Sénégal développé ndax ñàkk yéene Sénégal développé moo la nga war a jënd ay matériels yu baax matériels sophistiqué wala boobu bàkk mënoo jënd sax nga am collaboration si biti waaye defuñu ko ñu jël gën naj xaalis bi dem andi matériel yoo xamante ne kenn xamul matériel lan la donte ne sax matériel yàgg naa am fii Sénégal waaye pas comme ba mel yemme nii ñëw nii nii si dëkk yu développé yi lañ koy gis tey mu ñëw Sénégal la laa xamal ne réew maa ngi si si yoon waaw réew man ngi si yoon li laa xamal réew mi dala neex réew mi dala jaar si yoon dala tegu si yoon liggéey bi dina dox Diomaye président Diomaye ak mu seetlu ne danañ liggéey réew mi mas la gis ñoo toog matuñu am un mois amaguñ sax un mois ka nekk naan waaw waaye lu ñu waxante woon defuñu loolu moo la xamal ne ñoom dañoo liggéey un mois waaye ñoo seen caaxaan réew mi dina changé de dina tegu si yoon de bilaay